Lamine fabal sa kayit ngir bàkk seex jiili te yëgle bis bi ñu koy woote li tab jiili ab bis dafay màgg màgg ak xew-xewam ba ca am moo tax bi la bis yeyoo siiwal te koy teele ñoo ngi fii ci pàkk bu sel toog fii ci kër Cheikh Abdoul Khadir yi limaani teeg ba léegi sëriñ Cheikh Mbakke moom Cheikh Abdoul Khadir jël ndigal ca magam ja Cheikh Mouhamadul Muntaha mi Serigne Touba tey ku ne xam digganteem ak Serigne Abdoul Khadir ak Cheikh Amadou Mountakha Serigne Cheikh def na mu daa def jox rakkam ji sës ci moom jàppale ko ci lépp taxaw ko ñoom ñaar ñuy benn muy sëñ Moussa Mbakke mu Cheikh Abdoul Khadir mu toog fii ci biir kër Cheikh Abdoul Khadir liggéey boobu ñu teg ko ci Serigne Sidi Mbakkeem Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ni moo yor organisation màggal gi ak ñi mu ko àndal. lan nag moo tax ñu duggaat tey kër Cheikh Abdou Khadir lu kenn dul fàtte la ñetti fan ci weeru tamxarit di la trois ci weer wi nu jëm muy bis bi mu gane woon jamono te sëriñ Touba waxoon te maam Cerno Ibrahim ndaamal daaru lam ko waxoon Cerno munu ko mbakke munu ko yéexal say jéego ba ngay dem ba ba ngay ñëw koo dajal du dem safara sëñ Modou Abdou Khadir Mbakke mu baax ma ma ko wutu woon daana wax ni bis bu ñëwee ku ñëw ca bis ba rek am ca loola ne at mu jot bu ñëwee ku ñëw ca bis ba am ca loolu kon Cheikh Abdou Khadir la ñuy fàttaliku ñaanal ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh moom Cheikh Abdou Khadir ci teewaayub Serigne Moustapha Mbacké rakam ak Serigne Sidi ak mboole mbokk yi fi teew yëpp ak taalibe ak dëkkandoo yi ñu ngi leen di nuyu ci turu kilifa yooyu. Cheikh Abdou Khadir nag noonu nii rek ni mu ko waxee ni la demee day jëmm joo xam ne ji moom dafa judd rek nekk imaam yaakaar naa ni musta nekk fenn maamum ba muy nekk ci at yu gën a saayere ci wàllu nekk ci ginnaaw sëñ Mbàkke Buso daanañ am waxtu yoo xam ne yii bu jamono xatee mu dib taw mbaa tàngoor bu sëñ Mbàkke kàbbaree bu sëlmalee menn moom lay gis ci ginnaaw te boobu ati sayir yi néew na lool tawarkalla boobee ak léegi it mas na maa wax ak mag moo xam ne dama ko doon laaj mu ne ma Sëñ Abdou Khadir li ma gis mu soppiku ci moom ba ma ko xamee ca Gédé ci waxtu woowee ñuy wax ak léegi si la ma gis mu soppiku ci moom mooy bajaaw bi moom laa ci gis mu dolli ko ci waaye leneen dolli ci na meluñ ca farlu gaag jàmm yàlla gaag ragal yàlla gaag gëm sëñ Tuubaa ak liggéeyal ko. ak jariñ taalibe yi zaahir ak baatin di leen xettali biir ak biti loole ba mu jógee la ko tàmbalee ndax bi bi bi biñ ko yóbbu sëriñ ku tedd ki di ko dalal ci yoon wi def na fa xar baaxook euh, ku wéri di ba àgg ci ñuy euh, ak ci moom yaakaar fekk booba dañ ko yóbbu sëriñ muy dal saafara na kookee ba mu jóg ne njuraak te booba dalagul alxuraan kon nag lii ñuy wax ci moom moom da koo dikkaale noo ngi ñaan kon bis bi képp koo xam ne teew nga ci wala nga am yéene teew ci wala nga def ci sa alal walla nga am sa yéene ju rafet def ko ci yàlla nan bokk jëriñoo njëriñul bis boobu yàlla sunu borom taas na ci barkeem yàggal fi kilifaam eh, njabootam gi ci sunu kanam di sunuy kilifa sëriñ Cheikh ak rakam. ci ndigalul sëñ Muntaxa ak ci kilifteefam ginnaaw ba ci sëñ Cheikh jotee ndigal ci moom bam jox ko ndigal ne ko yeesalaat ndigal yeesalaat naa ndigal li. na ngeen ko wéyal ginnaaw bu jotee ndigal loolu ci boppam moom sëñ Seex moo ma jox kàddoom ngir ma jot li leen ginnaaw bu mu jotee ndigal loolu ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi toogal jataayub sëriñ bi ginnaaw boobu moo ma jox kàddu gi ngir ma jottali leen niñ ko baaxoo woote màggal gi nga xam ne mooy màggalu sëñ Abdul Xaadir gi baaxoo woo leen ci te woote bi nag ñëpp lañu woo bàyyiwuñ kenn setteewuñ kenn ni ko wolof yi daa waxe woote ba bëstal lañ woote waaye woote wuñ wootu ketteeju ketteeju ci wolof mooy woo ñi bàyyi ñii ba bëstal mooy woo ñëpp ñëpp lañu woo ci bis bi nga xam ne moom la ñuy defal Sëriñ Abdou Khadre tam war a dëppoog ci weeru tubaab ñetti fan ya ci septembre bi nga xam ne mooy waa ji ñëw ngir bëgg fàttaliku ilima ki nga xam ne mooy ñeenteelu xalifa bi yoonu murit di ilimaan ji nga xam ne ci ñi gën a sàmm la bokk di ab sunni yu boo xam ne lépp lu tegta lu baatu sunni yu di tegtale rek jëfee na ko waxee ko ba ñëpp xam ne sunni yu la fàttaliku uh, uh, fàttaliku gu mel nii nag fàttali uh, wërta jaar ci ñun jàll rek te bàyyiwut ci ñun jeexit fàttaliku ku mel ne sëñ Abdou Khadir war naa jeexital ci suñu xalaat ak suñu dund nan la ciy mën a bañ jeexitale sax te buñ dundam bépp boo koy fàttaliku ay maanaa yu ngëneel yu kawe la lay jàngal di la indil ab di eh, ab forsa am nos boo xam ne danga ci mën a am kattanug ruu sa ruu dana sarsiwaat bu doon bëtëri dana sarsiwaat ndax boo dégg li mu doon jëf ci digganteem ak yàlla ak li mu doon jëf ci digganteem ak mbindeef yi dana sarsiwaat sa kattanug ruu dana yeesalaat sa dund dana daggiwaat sa dogu ak sa ngëm dana dëgëral sa nammeel ak sa taalibe ndax moom mi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ay ro royukaay yi la royukaay yi nga xam ne dañoo yaroo ci daaree sëriñ bi te li lislaam dëgg dëgg dëgg lislaam ñu ñu ñu ñu wattu ko te jëfe ko dëgg dëgg dëgg na lislaam mel islaam ju raxut dara kooju dara ak li lislaam indi moom la nekkoon di ko jëfe loolu nag mi ngi ko jëlee ci madrasatul xaadi xaadimul Mustafa ba tax ñoom mujj nañ ñoom ñi ñee ñooy sëñ bi yar mujj nañ mel ne al euh, loolu yonent bi Aysatu waxoon ne euh, sallallahu alayhi wa alxuraan ji dox la ñoom it meloon nañ noonu ko lay seen ak xam nañ ko lay seen wartiif xam nañ ko seen digganteeg seen borom ak ci seen digganteeg mbiri mbindeef yi moo tax ñu nekk royukaay yu mag kon nag yàlla na leen yàlla na ko yàlla fay moo ki kemam yépp fay sëriñ bi nga xam ne moo def ci ñoom loolu. sëriñ si di nee na woote bi nag. <coughs> ñu ngi ko jëmale ci mbooleem képp koo xam ne kii jullit nga nga <coughs> ak foo ma dëkk ci réew mi rawatina ak nag ñi nga xam ne ñoo la bokk mooy bokk yi te ñu tàmm bokk ci maam aram ak nuñ ci bokkee moo xam góor lañ ci boole wala jigéen ak ñi nga xam ne mooy njabootu euh, maam Mor Anta Sali gépp ñu ngi leen ciy woo fu ci waaye mën a nekk di ci woo mboolem njabootu ci Ahmadou Xadib gi nga xam ne moom lañ bokk Serigne Touba li tàmbalee ci Serigne Mahamadou Moustapha ba ci njabootug Cheikh Mouhamadul Mourtada tàmbale ci njabootug Cheikh euh, soxna Fatimatu Dia ba ci njabootug soxna Maymunatul Makki al Kubra ak mboolem bokki ñaale yëpp wokki musée bi ñoom ñoom ñooy war a woote woowuñ war a woote nag ñuy woote ñu leen woo ñoo war a woote di woo mboolem seex yi nga xam ne ñoo aju Sëriñ Tuubaa ñëpp ak fu ñu mën a jógee mboolem seex yi amul kenn ku ci bàyyi woo nañ ñëpp ndax seen xaatu ñëpp la woon ñëpp la woon wala réew ñëpp la woon ñu ngi woo itam mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju kër gi ak fu ñu mën a nekk ak fu ñu mën a bokk bayewuñ kenn sëñ bi nee na mi ngi soññ itam mboolem jànkat alxuraan yi fooy mën a nekk daada yi ak jàkka yi ni ñëpp mas jàng alxuraan li fi mu waxe woon léegi ak jàng xasida jullu ci yoon si salama noo mu gën a baree dara du ci doy sëriñ si di nee na mate bi ngi fàttali mboolem ñi nga xam ne bii dañoo baaxoo woon ci bis bii di waajal ay ay xéewal di ko indi taalibe yi ku mel ni sëriñ Cheikh Baara Mbacke ak njabootam ak sëriñ waa sëriñ Cheikh ña ngi jaabi njabootam gépp ak waa kër ak sëriñ Seydou Niang ak mboolem ñi nga xam ne bii baaxoo nañoo def ay ay ay teraanga di jox ay ay xéewal di ko andi bis mi ne mi ngi leen ko fàttali te li ko doon defee nañ ko defee ba raw def lu ko doon incha allah <coughs> nee na nag mi ngi woo ñëpp di soññi ñëpp waaye ñi nga xam ne bii nag ñooy waa borom kër gi te jiitu ci kër gi ci ci jawriñ yi bokk na ci ñooñu ku ñuy monsieur Pape Diop su ñu nee mi ngi soññu bu baax di ko fàttali bis bi di woo Souleymane Ndeye Ndiaye moom itam mi ngi soññu bis di ko woo di woo sëriñ Alioune Badara Cissé Abdoul Karim Fafana ak sëriñ Aramine Mbacke di mbokk di talibe di woo itam sëriñ Xaadim Diop ak sëriñ Galasmane Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi leen soññi kenn ku ci ne fa nga daa taxaw na nga daa def fas nañu nañu lay ñaan def lu ko raw te yokk ko. di yëkkati suñu kàddu it ci turu mboolem njabootu sët sëriñ Abdou Khadir yëpp noo mën a bokkee ci Abdou Khadir muy mbokk yi mbusoo bi ak turandoo yi nga xam ne ñoo baaxoo di ànd di yëkkati bis bii nga xam ne moom la ñuy waajalee màggal gi muy confrance bi tan baaxoo ko ànd ak turandoo de Abdou Khadre yi ak bokk yi ak euh, euh, ak sët yi ñoom ñu ñett ñoo ko baaxoo di ànd ak mbokki taalibe yëpp euh, ci biir yëgle boobu nag ñu ngi ciy jiital mbooleem ñun bokkal Serigne Touba ñëpp li tàmbalee ci njabootug Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci njabootug Cheikh Mahamadou Mourtada ak njabootug Soxna Fadja ba ci njabootug Soxna Maymouna ñu ngi ci woo mbooleem ñun bokkal suñ Mor Anta Sali ñëpp mboolem ñun bokkal maam Balla mboolem ñun bokkal maam Haram ñëpp ak mbokki Mbuso bi yëpp ak euh, euh, waaw ñun ñun bokkal suñ saa Buso ñëpp mboolem Mbuso bi yi Mbuso bi nag moom seen cër la kon nag ñoo ñoom ñàkk jekk ñoo ko daa ànd kon seen bis la kon ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp di ci woo mbokki taalibe yi ak mboolem euh, seexi Sëriñ Tuubaa waay fu ci waay seexoo rek ñu ngi la ko yëgal di ko yëgal jullit yëpp ak taalibe yi bis bi nag mi ngi war a doon le première lañ koy def fii ci kër Sëñ Abdou Khadre ci gannaaw takkusaan incha allah. conférence bi euh, thème bi ñu tam nag mooy alxitaabul muridiyu masuliyatun wa tahaddiyat muy thème bu am solo boo xam ne sëñ Fallou Boussa Hassan moo koy mooy def waxtaan wi waxtaan mi ngi tàmbali ci bu 17 heures jotee bu ginnaaw takkusaan ci la ñuy tàmbali waxtaan wi bu ko defee moo mën a teel a àgg incha allah. di leen woo ci bis bii nga xam ne amuñ lu may moom muy bis bi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy suñu bunt ci Serigne Touba muy Cheikh Abdoul Khadir te képp ku fi ñëw di gan ñun ñoo la war a daral ñoo la war a teeru ñoo la war a teral kon nag fi ne nii ki amatuñu waajtaay saa saa buy xëyee ci li war a dox jëm mooy luy jagal bis bi kon ñu ngi woo mboolem daayira yooyu yaa yaakaar Serigne Abdoul Khadir ak fi mën nekk di ko tàmbalee ci fédération Dakar ci turu seex gumba la mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar yëpp ak fédération waa Italie waa Espagne ak Amérique ak France ak mboolem daayira yi aju kër Sëriñ Abdou Khadre ak fi ñu mën a nekk di leen wax ne ñu ngi waajal bis bi nga xam ne amuñ lu may moom muy bis Cheikh Abdou Khadre di soññee tam ci ndigal li nga xam ne Serigne di joxoon nañu ko mu jëm ci magasin bee ñu war a defar ci Baxdaad ngir matériel yi ñu digaloon ñu wut ko bi ñu ko wutee ba noppi day bañ ñu bàyyee ko mi mi saaw wala bi saaroo mu daayira yi ak fu ñu mën a nekk muy fédération yi yëpp liñ ci am seen at yi ñu indi ko bala ñoo bala ñoo màggal ndax suñu buñu teg xeer yi bala ñoo àgg ci màggal gi li nga xam ne moom ñu baaxoo woon at yi ñu baaxoo woon joxe ci màggal gi itam sëriñ bi neen mi ngi leen koy fàttali ñoom ñëpp kenn ku nekk eh, boo jurul lettre itam na nga xam ne boo déggee appel bi mooy mooy mooy su soññee ñi ngi nuyoo ci turu suma jawriñ yi nga xam ne ñu ngi biir Touba di sëriñ Jili Ndiaye ak sëriñ Touba Mbacké ak mbooleem kilifa yi ci biir Euh, dëkk bi ak Sénégal sëriñ Touba Mbacke dafa wax ne <clears throat> mu ngi leen di soññ bu baax ci ndigal yi nga xam ne daanañ ko déglu di ko jëfe mu ne sant na ci jàll lool waaye mi ngi leen di soññ ci yi ci kanam mooy dafa bëgg fu ab donga mën a nekk ci réew mi ak bitim réew nga bàyyi sa xel ci ne sunu bis bii nga xam ne moom rek moo ñu war a ñor egsi na ñu fexe ba liggéey bi nga xam ne daan ko féetale ci biir kër sëriñ bi ñu fas ko yéene def nu raw nañ ko daa defee te nee na itam nañ ci jiital ab yar jiital ci ay teggin ak taalu gu mat sëkk ndax lépp loo xam ne ñu ngi koy roy ci dongab laxasaay bu noppi ci moom lañ ko war a roy ci wetu taalube nee na kon mi ngi leen digal biir kër gi nga xam ne coono gu sëriñ bi lañ ne nañ fi dugg ak ab yar dugg fi ak i teggin te fexe ba njëkk fi te mujj fi te lépp loo xamee ne tam daa nañ ko fi def ñu def ko nañ ko daa defee bun fanaane ba bët set nañ buub kër gi ba mu set ñu raxas ndab yi boole na leen ak sëriñ Afi Bousso mi nga xam ne mooy seen jëwrin bu ngeen noppee mu ñaanal leen ba mënee mën a jàkkaarloo waat ak sëriñ Sidi. yéen turandoo Cheikh Abdoul Khadir yi ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu jëwriñ sëriñ Seydil Mokhtar ibnu Cheikh na Abdoul Khadir mu wax ne nañu jàkkaarloog yéen ngir yeesalaat ndigal yi nga xamante ne rek moom lañ leen daan jox a jekk ndax soppikuwul ndax màggal gi bañ ko dalee sos ba nëgën si yéen yéen a ko sosoon ba tey mu egg fii kon lu suñ borom barkeel la sant na leen itam wax dëgg yàlla gërëm leen ci li nga xamante ne moo jot a jàll loolu nag kon li muy firi mooy ñu gën a farlu ci li ñu jëm rek baas bi nga xamante ne moo nekk ci bunt bi naka jekk yéen la ko joxoon ngeen daan ko teg ci loxo Cheikh Abdoul Khadir ngeen daan ko teg ci loxo Serigne Khadim Gueye mu di ko jàng kon nag la ca war lépp ba tey yéen la war euh, ci turu nag euh, suñu njiit di Cheikh Abdoul Khadir mu sëñ am di ak soxna Mominatu mu Daaru Salaam moo joxe ndigal ne nañ ñëw fii wax leen ne teg yi nga xamante ne da ngeen ko daan cotiser mu daan jëm ci màggal gi soxla nañ ko lool li nga xamante moo di suñu cër itam ci magasin bi nga moom la ñuy tabax baataat ngir war faa mën a garder euh, bagage yi ba tey soxla nañ ko lool kon lépp nag na ànd ñëwandoo euh, sëriñ ji liggéey mi nga xamante ni tamit moo jiite liggéey bi dafa wax ne mënuñoo ñàkk woo nag ñi nga xamante ñoom la daan ànd liggéey bi te seen loxo daan ci feeñ muy waa Daaru Salaam waa Gédé Bousso Mbacke Bawal Thiès Louga Kaolack Diourbel ak Jiwaalo Wélingara ak Grèce Kaffrine ak Dakar ak bitim réew yëpp ku ci bëgg nag lu gën a leer du xaj fii lépp waaye boo jokkoo ak moom ci numéro bii rek 77 518 27 19 518 27 19 boo ko defee rek incha allah loo bëgg ci renseignement da nga ko jot. dégg ngeen ñi fi jël kàddu yëpp xam ngeen ni nag cérémonie officielle bi la 4 lay doon bu ñu màggalee ba ca ëllëg sa. ci bu dix heures jotee ndax dañoo bëgg mu teel ndax ku xam na Cheikh Abdou Khadir ak waxtu kon dañoo bëgg cérémonie bi teel bis baa ngi noonu bis bi nag mooy bis Cheikh Abdou Khadir l'islam bee ko seere ak diine ji waaye ñi mu bokkal lislaam bi ñoo ko seere dégg ngeen la Alaaji Abdu waxoon ci moom ñu ko jiiteel yàllaa la jiital Cheikh Abdou Khadir jógal nga jiite dégg Maodo si la yilimaani Ndakaar la waxoon ba Cheikh Abdou Khadir demee dana yilimaani yilimaani yi dem na ku munta leble it war a mën a fay bor bàyyi wuñu kenn bàyyi wuñu fenn soppe xarit wala ñëpp sëñ Moustapha woo na leen ci turu sëñ Cheikh ne ñëpp ñëw la trois bu kenn manqué. xéewal yu seex ji li wàccaalee ci àdduna ji nit ñëpp xaj nañ ci kon màggal si la li ji li nekkul ku ñuy fàtte sax ngir xol yi yëpp la sax ngir ñëpp a koy bëggee naa maa bëgg si li